di nuyu seeni auditeur ak euh, auditrice euh, di leen jaajëfal tamit euh, ci ni ngeen ma xalaatee ba jàpp ne war naa mën a nekk seen invité. tey am nañ ci mbégte lool door émission bi ak Kafountine tey bu fekkoon ni monsieur le maire auditeurs yi nga xam ni wala auditrices yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu tey Kafountine fan lañ ko mën a placer tey ci Sénégal. waaw ñu bëri dañuy jaawale Kafountine ak Koupentoum ñu bëri dañ may naan Koupentoum ne leen du Koupentoum Koumpentoum mais la Kafountine mi ngi nekk euh, Casamance ci région Ziguinchor département Bignona arrondissement Kataba 1 foofu la Kafountine nekk. Kafountine tey fan la tur bi jóge waaw Kafountine uh, ci ay nettali euh, ci mag ñi ñu ne ci turu soose la moom mooy Afuntita génn na fa am gan gu ñëw am ku mu doon laajte mu ne ko si soos yi génn na voilà foofu de turu Kafountine euh, jógee. waaw ah, ko xam Ziguinchor jàpp ni ñi nga xam ni njëkk nañ fa sanc duñu woon ay soose tey nu mu demee tey ba ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, communauté bi gën a élargir gën a yaatu presque léegi ñu bari lañ fay fekk. effectivement euh, Kafountine tey li koy mandargaal. mooy xeet bu nekk boo ñëwee di nga ko fekk Kafountine fii ci senegal sant bu nekk boo ñëwee di nga ko fekk Kafountine fii ci ci Sénégal mu doon euh, dëkku koom-koom ba tax na ñu bëri dañuy ñëw wut si seen euh, teranga foofu ba faf dëkk bi neex leen ñu ñu dëkk moo tax léegi dañ koy li tubaab di wax melting pot loolu la Kafountine euh, bindoo léegi ci wàllu xeet voilà moo tax euh, mu doon dëkk bu rëy dëkku koom-koom la brassage culturel bi wa culturel dafa sax trop voilà ba tax na boo ñëwee euh, comme ni ma la ko waxee sant yi nga fay fekk voilà loolu nag ñun ñu jël ko def ko opportunité richesse parce que tàmm nañu gis fu ay xeet euh, dëkk euh, lu ci bëri jàmm ji du ci noonu. du ratax noonu mais contrairement à Kafountine moo tax ñun pour renforcer loolu ñu amoon na sax benn festival ñu tuddee ko festival des ethnies pour valoriser loolu euh, festival des ethnies bi dañuy may ethnie bu nekk mu ñëw wone aadam cosaanam ci lépp ñu def ko ay activités culturelles loo xam yoo xam ne euh, fi mu toll nii sax dañ ko bëgg a jëmmalaat mhm. mu doon loo xam ne au lieu muy doon euh, gàllankoor mais mu doon euh, richesse boo xam ne xamee nañ ko si si Sénégal voilà Kafountine bëgg a loolu. waaw Kafountine bëgg a mandargal loolu est-ce que initiative bi dafay yem Kafountine wala dafay ubbeeku ci yeneen communes yi nga xam ni nekk na ci euh, peggu Kafountine. en tout cas pour un début euh, dañ koy yemale Kafountine parce que tamit Kafountine dëkk touriste la tourisme la. dafa di bokk na ci li nga xam ne moom tubaab di wax produit touristique produit culturel yoo xam ne war nañ ko mën a jaay touristes yi touristes yi nga xam ne dañuy jóge bitim réew ba ñi nga xam ne aussi dañuy jóge biir réew mi Sénégal doon nit ñu ñuul ñu jaay euh, produit boobu ba nga xam ne dafay doon euh, produit touristique buy xëcc euh, tourisme bi yokk cohésion sociale bi ci ci biir Kafountine mais pour le début dinañ ko yemale Kafountine mais xam nañ ne projet la boo xam ne même ministère de la culture mën ne ko approprié wu yeggee ngeen ko ko boo ñi ngi ci projet bi mais dinañ ko ko yeggee bu ci jàppee ñu dinañ ci dem bu ci jàppul tamit ñun dinañ def ak suñuy moyen euh, ba nga xam ne vraiment dinañ ko dinañ ko kon ce qui veut dire que euh, culture dafa am solo lool ci diwaanu Casamance rawatina Kafountine te yéen jox ngeen ko dafa am solo trop trop trop trop trop euh, bokk na ci luy mandargal Kafountine bokk na ci li nga xam ne nit ñi sopp Kafountine bëgg ñëw Kafountine alors culture ci fànn yëpp la nag. voilà ci fan yëpp. bàyyi voilà bàyyi ñu dara am nañu foofu ay ay événements culturels yoo xam ne événement yu mag la. festival d'Abéné carnaval de de Kafountine festi festival des ethnies bi ñuy bi ñuy waaj a def nii ak yeneen activité culturelle yoo xam ne ku tudd Kafountine ku ñëw Ziguinchor boo ne Kafountine ci bokk na culture bokk na ci li li koy mandargaal. am na solo kon brassage culturel bi am solo gi nga xam ne tey am na ko ci diwaanu Kafountine waaye monsieur le maire junj nañ ñu ko sànq ci ndorteel waxtaan bi nga ne dëkk la boo xam ne dafa am koom. yéen seen koom-koom bi ci fan lay jóge euh, koom-koom bi fi muy jógee tey boo ñëwee Ziguinchor boo nee Kafountine li ñu day njëkk a laaj ana jën yi dëkku napp la. Euh, tourisme ak mbay mi agriculture. ci napp gi d'abord Kafountine ak nappam ndax am yi koom bi ngeen di wax yéen a ko fay gis bu baax. mi ngi ñëw mais li ci ëpp. Kafountine duñ ko njariñu ah, lu tax loolu moo ñu jaaxal parce que si ni kee bi bindoo la euh, bokk na ci li tax euh, may gën a ñaxtu parce que mënuñu comprendre tey quai de pêche Kafountine euh, daanaka bokk na ci quai yi gën a Sénégal Euh, lii du samay chiffre mais chiffre état bi la buñ ñëwee ñoom dañuy ndamoo ne kee Kafountine day génne en terme de recette at bu nekk dix milliards dix milliards yoo xam ne euh, population bi duñ ko sentir mu doon euh, loo xam ne naqar la voilà justement bokk bokk naqar la te en plus war na mën a weesu foofu war na mën a weesu foofu parce que tey boo ñëwee ni ngay déggee turu Kafountine nu muy màggee boo ñëwee ci terrain bi da ngay xaw a am déception kerse parce que quai de pêche bi wu ñu ko ministre de la pêche bu fa jaar day dafay annoncer ay chiffres ay milliards mais ba tey eh, loolu du kenn du ko gis mu doon ñaari mbir ñoo ci mën a am soit dañuy ñëw ndax population bi wala effectivement xaalis boobu day am mais dañ koy détourner ñun loolu lañ ko mën a tuddee mais dafa laaj ñu aménager quai de pêche bi mën nañ def lu raw loolu sax mooy maanaam créer port de pêche à Kafountine lu mën a nekk la lu mën a nekk la parce que études yi wane na ne Sénégal pour ñu am port de pêche en eau profonde Kafountine ak Ndayane mais Euh, ñun à notre grande surprise bu doon développer politique de façon objective désenclaver Casamance ah. euh, valoriser comme comme Casamance euh, xel war na mën a nangu état ñëw euh, defar quai de pêche Kafountine on a rien contre ndaayaan mais dañ jàpp ni Ndayane dafa jege Dakar te Dakar port Dakar baa ngi fii mais bu dee développement Sénégal bu dee suqali Sénégal rek lañ soxla et Kafountine c'est un port am eau profonde war nañ fa mën a defar euh, pont mhm. euh, port autant pour moi mhm. léegi balaa boobu nañu ñëw aménager quai de pêche bi parce que am na fu muy toll même boo demee tefes dañu lay wax fii nappkat Sénégal yëpp ñu ngi fii ñu jóge Kayar jógee Joal jóge Mbour ñëpp tàncaloo Kafountine parce que xam nañ ne zone boobu moo am jën voilà donc euh, bis bi mën nga am lu ëpp téeméer camion jën yu fay ñëw chargé mais loolu du lu ndaw mais malheureusement euh, aménagé wuñu ko développé wuñu ko mu doon loo xam ne bokk na ci euh, li tax ñuy ñuy ñaxtu ñuy ñaxtu euh, moo tax bu ñu yëkkatee yenn kàddu yi. ñu ne da ngaa tàng. voilà ñu ne ñu ne dañoo tàng wala dem dañuy dem sax ba ba muy ngelaw léegi rebelle ah <laughs> mais c'est c'est très normal. c'est très normal li ma wax euh, Sénégal gi ñun ñëpp ko bokk euh, développement Kafountine boo demee sant bu nekk nga fay fekk. donc euh, développer Kafountine mooy développer Sénégal développer Kafountine mooy développer Casamance. développement ñëpp ci gis euh, seen bopp donc am na bu sous région bi boo demee di nga fa fekk de Ghanéens di nga fa fekk des Burkinabé di nga fa fekk des nigerian ñoo xam ne ñoom ñëpp ci tefes bi ci ci géej gi la ci euh, mmh. quai de pêche bi la ñuy yëngu mmh. quai de pêche bi am na plus de six mille doomi aadama yoo xam ne fa la ñuy daanee seen seen doole donc xam nga ni loolu du du lu ndaw nekkul lu ndaw mmh. donc boo amee benn volonté politique bu ndaw mmh. euh, war nañu ko mën a développer ba ñëpp gis ci seen bopp léegi ci kaw loolu aussi léegi monsieur le maire da nga baal ma jàpp ni kon euh, volonté politique état bi amu ko famante amul amul mmh. amul amul parce que bu amoon lu toll ni koom-koom boobu ak lii nga xam ne moom la ñuy jooy ci chômage te mu mën a créer ay emploi mu mën a créer ay richesse euh, war nañ mën a xoolaat seen politique xool ni ñuy réorienter seen investissement yi mais investissement bu sérieux amu fa loolu moo tax mais la plupart dañuy dégg génn ministre bu yor wàllum pêche bu demee foofu nu muy amee satisfaction kon moom ministère bi dafay am satisfaction mais askan wi par contre yéen ngeen ne gis leen dara. mais c'est la pauvreté c'est le paradox paradoxe boobu moo fa am buñ ko yéegee askan wi loolu la buñ ko nëbbee askan wi ñun dañu doon génération boo xam ne léegi loolu dootuñu ko seetaan. donc faudrait que ñu xamal ko askan bi mhm. et def plaidoyer. Mhm. tamit pour euh, vraiment outil de développement boobu. Mhm. ñu sàmm ko parce que am na lu gën a garaaw luy ñëw. loo xam ne sax bu ñu moytul quai de pêche bi dafay dafay dafay dafay xaw ma nu ko olof yi di waxee. dafay disparaître. ak érosion côtière bi. géej gaa ngi lekk euh, quai de pêche bi. quai de pêche bi treize kilomètres la. jamono jii may wax yow nii am na dix kilomètres yoo xam ne ndox mi nangu na ko. Hmm, loolu danger la danger bu mag la euh, moo tax toujours li may wax. Euh, moo tax ñu ne dama tàng <laughs> voilà dañu bàyyi ba ay doomi aadama faatu euh, ñu indi saaku ceeb saaku diwlin ñu ne des mesures d'urgence alors que mesure urgence yaa ngi ni mooy lan ñu prévenir hmm. voilà est-ce jàppoo ni woon tey bu kee bi meloon ni mu war a mel ci wàllum koom wàllum xëy Kafountine amul leneen lu muy xoolee yeneen commune mais Kafountine euh, boo xoolee ni ko ni mu bindoo ni ko yàlla bindoo mooy posi position géostratégique la euh, Kafountine naturellement c'est un pôle économique pôle économique boo xam ne bu ñu jàppee ci tourisme bi mën na développer Sénégal bu ñu jàppee ci mbay mi mën na développer Sénégal mën nañ def de Kafountine euh, l'une des plus grandes productions agricoles au Sénégal waxuma la Casamance. c'est très possible. Mm-hmm. parce que potentialité boobu foofu experts dañ koy wax. experts yi dañ koy dañ koy wax c'est c'est possible donc euh, pôle économique la boo xam ne secteurs yi nii buñ ko développé euh, vraiment dina indi soppi xaru kanam Kafountine dina indi développement boo xam ne du yem Kafountine mais dina njëriñ Sénégal yëpp dina njëriñ Sénégal yëpp David jaata la ñuy dalal ci émission gox bi moom mooy maire bu commune bu Kafountine mais monsieur le maire euh, tey ci li nga xam ne moom moo jëm ci désenclavement bi nga xam ne état bu Sénégal woote na ko ngir suqali tey Casamance. yow nga ñëw wax lii mel ni état amul ambition wala pour désenclaver Casamance waaye tey li nga xam ne moom moo jëm ci Kafountine exemple la ci kon xanaa désenclavement boobu ñu woote yeggul ka des na de yeggul Kafountine euh, parce que boo xoolee Kafountine benn yoon rek. sur euh, la partie continentale moom moo dem ba na benn yoon te instant bi nii boo fa demee li yàlla xam doy na yoon boobu. baa du yàqu la. oui yàqu complètement uh-huh. euh, nga xool euh, ni Kafountine bindoo c'est une presqu'île presque presqu'île bi mooy lan euh, géographiquement dëkk bu ndaw la. Uh-huh. c'est neuf cent deux kilomètres carrés uh-huh. alors. sur les 902 les 832 kilomètres carrés yëpp ci îles ay îles la donc pour îles ay euh, fleuve mooy bolon yi ñoo ko ñoo ko wër pour nga dem foofu gaal ngay jël donc amul benn politique de transport fluvio-maritime bu ñu fa def moo tax accès bi ci illi yi difficile donc loolu bu amee te îles yi aussi potentiel richesse bu mag moo fa nekk boo xam ne bu ko état bi gëstoo tuuti def fa ay investissement yu yu xaw a takku vraiment dina dina suqali euh, koom-koomu Sénégal. kon xanaa bokkul ak position bi ñi nga xam ni ñoom nekk ci gouvernement bi dëkkee ci diwaan sud ñu ne ñoom Casamance dañ ko transformer carrément léegi beneen problème la léegi. xaw ma nan laa ko mën rek. xaw ma nan laa ko mën <laughs> qualifier mhm. mais euh, wax loolu bokk na ci. saaga saaga population yi sax laay wax. Hmm? bokk na ci saaga population yi. kon yéen jafe-jafe yi bari na foofu. jafe ci jafe-jafe yi fa yi fa nekk. voilà moo tax bu ñu amee yenn position yi mhm. par rapport a à la volonté mhm. de l'état central boo fa demee yow mi sa bopp boo fa demee gis li fa nekk da ngay d'accord ak ñun da mhm. ngay d'accord ak ñun ñiy jàpp ne parce que dañ foo dañu dañoo xamul mais ñi fa xam tuuti boo fa demee dangay bëgg zone bi parce que tellement dafa dafa naat da koy bëgg mais aussi da am benn sentiment de de révolte li tax bu doon investissement bu ndaw am na fa vraiment euh, exemple bi may joxe tey boo ñëwee Kafountine moo xam melting pot la xeet yëpp a ngi fa nationalité sous région yëpp a ngi fa mu doon pôle pôle économique plus de quarante mille habitants nga ñëw bëgg am bëgg a faju euh, boo xoolee niveau d'infrastructure sanitaire poste de santé moo fa am mënoo fa am benn médecin euh, médecin bi fa nekk euh, benn volontaire la boo xam ne amul sax euh, salaire est-ce que vous comprenez donc c'est c'est un poste de santé tey bu fa malade amee urgence dañuy obligé yóbbu ko à cent dix kilomètres de de Kafountine alors que comme combat ngi fa muy quai de pêche bi état bi di ko exploiter mais am na lu ñuy wax la responsabilité sociétale des entreprises état war na mën na ne. amuleen ko yéen amul état war na mën na ne lii ñuy. jël fii ci Kafountine war nañ mën a investir loo xam ne ne serait benn centre. yéen li état di génn ci commune bi yéen amu leen ci dara. hospitalier. Uh-huh. hospitalier loolu mooy problème bi. Uh-huh. donc euh, état li mu def par rapport au quai de pêche dafa signer benn contrat de concession ak euh, mairie. Uh-huh. pour l'exploitation di quai de pêche. mais ñu ne mairie amoo droit exploiter ko directement da ngay signer contrat de sous-concession avec les interprofessionnels te boo signé ñoom contrat de sous sous concession li ñu ci mën a am comme redevance muy bénéfice yu yu ñuy si bénéfices sur les bénéfices. nga mën a am redevance. bu ñu defee effectuer toutes les dépenses. alors pour loolu ñoom boo demee dans au niveau de la gestion ñu ne la fii. on n'est pas appelé à faire des bénéfices donc dépense yi day dem ba li nga xam ne bu ñu ko liy des mhm. li ñuy jox mairie bi du doon loo xam ne mën nga ci mën nga ci defar tali voilà mënoo mënoo ci defar tali mhm. voilà doy na waar quand même ni ngeen koy dundee euh, situation bi doy na waar quand mais est-ce que euh, vous avez le soutien de la population jàppandalu askan wi effectivement mhm. moo tax euh, lii may wax nii du kàddu gu jóge ci man parce que ñun ñoo ngi ak euh, population bi di leen déglu di waxtaan ak ñoom te tey on s'est porté avocat de ces populations là uh-huh. te buñ ko waxul dañuy tray li nit ñi di wax ci suuf uh-huh. man moom laay wax léegi ci kaw mooy euh, mooy xaalisu commune bi nekk da koy jëli voilà te moom te <laughs> bio boo ñu ne syndicaliste la uh-huh. voilà li nga xam ne euh, responsabilité mairie bi la. Mhm. ñun dinañ def suñ kemtalaay kattan. Mhm. ba li nga xam ne moom mooy devoir mairie bi. Mhm. mu def ko la moom aussi euh, xam naa ne population bi xam nañ loolu. li nga xam ne dafa jéggi suñu compétence. plaidoyer bi ñu mën a def mooy li may def ni du par rapport au à la pêche bi nga xam ne. compétence euh, trans compétence état la la pêche ñu ci mën muy def plaidoyer mm-hmm. au nom des acteurs de la pêche au nom de de la population am mais xanaa monsieur le maire David Diatta loolu moo tax euh, gaa yi def Kafountine ab zone boo xam ne fa la ñuy defee immigration irrégulière bi xanaa effectivement parce que Kafountine dafa isolé wu mm-hmm. non seulement dafa isolé mooy li la wax euh, c'est dix-neuf villages dix-neuf villages yi les quatorze village ay il la mhm. xam ne ay bolon ñoo ko wër amul euh, gaal euh, gaal yi duñ fay dem fréquemment donc gis nañ ne c'est une zone qui n'est pas trop fréquentée même si euh, elle est habitée même bu dee am na ñu fa dëkk mais du zone la boo xam ne dañ koy fréquenter trop mhm. donc ñi nga xam ne ñoom ñooy jël gaal yi di dem xam nañ loolu ba tax na ñu ciblé zone boobu comme zone de de départ donc loolu nag euh, ñun en tant que mairie en tant que autorité locale euh, am nañ ci responsabilité suñu responsabilité mooy lan parce que tey euh, image Kafountine moom moo ci tilim tey ñu jàpp ne am nañ migrants yuy jaar Kafountine ñu ci faatu alors euh, loolu du. mal ah. fait très mal fait très mal dafa dafa metti ci xol te du doon euh, image bu rafet ci Kafountine. moo tax ñun am nañ ci responsabilité fexe ba nga xam ne loolu euh, dañ koy dakkal. ci naka. voilà xeex bi nag ñun am nañ ci responsabilité waaye autorité étatique yi aussi am nañ ci responsabilité ñoom respons xeex bi ci ñaari fànn la. ci wàllu koom-koom la ak ci wàllu euh, sécurité wàllu koom-koom bi mooy lan tey boo jegee ñi nga xam ne ñoom ñooy jël gaal yi di dem boo leen laajee ñu lay wax waxi xëy lañ lay wax. Hmm. waxi liggéey lañ lay wax. donc ñoom dañuy dem daani seen doole pour teral seen i waajur. Hmm. kon man ma jàpp ne ñu am jom lañu parce que bu ñu amuloon jom dañuy ñëw toog peut-être euh, seen waajur di leen may ñu ñu lekk même si buñ ko même si on qualifie ça de jom démesuré. Mm-hmm. tu donc euh, mais jàpp naa ne ñu am jom lañu ñooñu boo toogee ak ñoom waxtaan ak ñoom euh, sensibiliser leen ci li nga xam ne mën nañ ko fi am tedd fi teral seen waajur te du du du jar ñu jaay seen bakkan. Mm-hmm. te loolu am na fi. Mm-hmm. Kafountine am na possibilité boobu. Ah. léegi yow bi. am na am na possibilité boobu mm-hmm. euh, ci créer des emplois durables ci wàllu agriculture bi mbay mi. Mm-hmm. ci wàllu tourisme bi ci wàllu napp gi bu ñu ci àndee ak état ku nekk bay ci waaram mën nañu utal ndaw ñi. tarixa yi bi ma ñëwee ci kaw loolu parce que lii nii dafa tombé mais man bi ñuy ñëw mhm. euh, problème xëyu ndaw ñi moo nekkoon suñu problème mhm. ñu gis ne koom-koom baa ngi Kafountine te euh, bu ñu defee tuuti effort war nañ mën a utal xëy euh, ñu ñu ñu ñu ñu ñu tëgg benn programme mhm. agricole pour le développement économique durable de la commune de Kaffrine programme boobu danañ créer ay ferme agricole dinañu développer euh, aquaculture bi dinañ euh, ne serait-ce que ferme agricole bi. Mhm. ñu jël quinze hectares pour expérimenter avec des experts. quinze hectares boobu buñ ko ak activité yu si yu muy jur ci emploi bi ñu ko xaymaa par an dina jur trois cent cinquante emplois ci ferme agricole yi rek. te mu doon emploi yu emploi durable boo xam ne vraiment euh, ñi koy def du ñu am dara lu ñuy ñee ñi nga xam ne ñi ngi ci bureau yi donc loolu noonu lu mën a nekk la euh, beneen aspect bi mooy aspect sécuritaire bi mais loolu c'est la responsabilité entière et exclusive de l'État mooy ñun en tant que collectivité locale amuñu euh, maqaama taxawal brigade gendarmerie amuñu maqaama taxawal Euh, comment ça s'appelle cantonnement euh, militaire marin foofu noonu te boo ni Kafountine bindoo laaj na ñu taxawal état euh, teg service yooyu foofu parce que amu fa amu fa amu fa poste de gendarmerie bi brigade mi ngi à Diouloulou à vingt cinq kilomètres de de dañ fa détaché ay trois ou cinq éléments ñoom ñooy ñoo fay ñoo fay nekk sur une population de de plus de de quarante mille habitants ak nu mu ñoom jafe-jafe yëpp ñoom même ñoom duñ ko wax takk takk der yi duñ ko wax mais ñun nous on est libre on est civil on est pas ci dañ koy wax dañ koy dañ koy wax ah. donc ñun dañ koy wax ci kaw même ñoom ils ont de sérieux problèmes pour euh, pour ça ah. moo tax impérativement pour des raisons de de sécurité état war na de façon urgente mhm. taxawal foo benn brigade de de gendarmerie boo xoolee aussi ñu ñëwaat ci napp gi mhm. accident de mer yi lu mu fay am dafa bari ah, c'est fréquent euh, bi jéey ji amee deux jours après am beneen gaal bu fa am kii ba am ñaar ñu lab mhm. te donc secours yi Ziguinchor wala Bignona li ñuy jógee alors bu amee benn camp sapeur pompier. mën nañu régler question yooyu yëpp. parce que mais ko wala. bon ci médias yi laa ko proposé dinaa sol suma dàll. dem vers les autorités compétentes wax ak ñoom. xool ci yenn disposition lañ nekk. mais man je je suppose que depuis jéeg bi ma amee ba léegi maa ngi koy wax mais amul benn réaction directe. Uh-huh. bu ma sentir voilà uh-huh. amul benn réaction directe bu ma sentir ci ñoom affaire muy ay lool loolu doon lu ma lu ma jaaxal trop voilà da nga jàpp ni jëlaguñ ko en compte jëluñu ko en compte euh, à la limite euh, jëluñu ko au sérieux peut-être te ay sénégalais la ay sénégalais ñoo fa ñoo fa et puis drame national waroon nañ xaar réaction ferme bu état bu Sénégal bu état mais boobu ba léegi malheureusement rien boobu ba léegi malheureusement rien xaw ma ci yan cadre lañ koy def mais man à mon niveau uh-huh. yéeguma sentiruma dara David jaata mooy suñu gan ci émission gox bi moom la ñuy dalal ni ki tey mais monsieur le maire Kafountine ko itam wax tourisme waaw ah, dafa mel ni kon buñ la xañee pêche bi e yi dafa mel ni kon tourisme bi mu ngi dox dëkk ba tourisme bee gën a dee léegi ah donc de monsieur le maire. bi bu njëkk boo ñëwee Kafountine mënoo def cinq mètres te dajoo ak mais léegi campement yi léegi dañ ko dañ ko soppi léegi ay ay dëkkuwaay loolu aussi euh, li may faral di dénoncer ah. euh, mooy dañuy jàpp ne insécurité insécurité insécurité jamono yi passé gis nañ ne euh, le Clérocé muy France def nañu liste rouge ñoo na Kafountine ne leen bu benn ci dem foofu dem dem ressortissant dem foofu yooyu yëpp c'est des ay ay ay ah. problème lu bari lay wàññi mhm. te ñu jàpp ne aussi am na ñoo xam ne daf leen arrangé ñan ñi nga xam ne peut-être ñi ngi si seen intérêt new fa seen intérêt ñi ngi feneen ñuy orienter les touristes pour cela ñu leen di ñu leen di ils les font peur ñu leen di ragal loo ne leen boo demee. yow ñan nga soupçonné ci loolu. bon ñi ngi si les acteurs je ne veux. Ah accuser ma directement directement kenn. ñu xam ñan la ah. foog ñu euh, accuser ma accuser ma kenn mais je sais que loolu mi ngi mu ngi ci mu ngi ci. donc euh, justement di. orienter les touristes ñuy dem ci yeneen euh, yeneen sites yi mhm. voilà soi-disant que fële insécurité la et tout ça. alors que voilà juste voilà juste juste justement. te loolu aussi ñun dinañ ci taxaw. comment dinañ ci taxaw euh, dinañ ci wax. ñan ñooy def loolu ñan ñoo def loolu ñan ñoo def genre lobbying boobu ñan ñoo nga jàpp ni ñoom ñooy def loolu. bon ci comme li ma wax rek mooy ñi nga xam ne seen intérêt. ils n'ont pas assez d'intérêt ci ci loolu tourisme yi dem euh, fële à à Kafountine te Kafountine ñëwee région de Ziguinchor boo nee tourisme Cap Skirring lañ lay wax ak Kafountine munoo génnee Kafountine ci tourisme climat bi c'est un très bon climat euh, environnement bi environnement bu bu neex la dëkk bu rafet la en terme de euh, et puis boo tu c'est c'est pas une publicité mais loo xam ne j'ai j'ai décrit la réalité tey boo jëlee euh, la réserve ornithologique de Kalissaay am na réserve la boo xam ne foofu la picc les oiseaux migrants là fa la nekk aujourd'hui c'est la seule zone humide internationale inscrite Euh, comme zone Ramsar donc loolu euh, richesse la boo xam ne mi ngi fa mais bokk na ci li nga xam ne naka la ñun suñu devoir muy valoriser loolu ba ñëpp xam ko uh-huh. au niveau international xam nañ ko mais au niveau international ñàkk nañ ko euh, xam trop uh-huh. ba nga xam ne ñun pour telloo siwaat tourisme bi mu mel comme ni mu meloon yooyu yëpp euh, dinañ ci taxaw et puis tey dinaa la wax benn affaire lii tax aussi tourisme bi freiné aérodrome Abenne Abenne amoon am benn hôtel bu mag boo xam ne am na aérodrome hélicoptère bi day ñëw uh-huh. mais tey jii may wax géew pour des raisons soi-disant de sécurité dañoo tëj aérodrome boobu donc pour dem Kafountine c'est c'est pas facile donc bu dem bi yombul ku bëgg ñu noppaleeku mais ci sa voyage nga daj ci ay jafe-jafe yu metti doo bëgg a ñëwaat donc euh, tourisme c'est pour noppalu c'est pour découvrir c'est pour nekk euh, nekk ci jàmm donc yooyu yëpp dañ ko war a sàmm xoolaat anam yooyu yëpp pour ñu ñuy suqalee tourisme bi au niveau de de waaw wax nga ko sànq ne nga di ngeen xool ban taxawaay ngeen war a ci am mais léegi tey ci commune bi wala mairie bi ban politique la fas yéenee teg boo xam ne dina mun a convaincre ñi nga xam ne ñoo doon tàmm di ñëw Kafountine ngir ñuy wéy di fa delluwaat. waaw politique bi mooy d'abord rassurer leen ne jàmm jaani fii. Ah, c'est important. c'est très important rassurer leen ne jàmm jaani fii parce que. même fii ñun eh, dakaar mhm. ay taux d'agression yi ngay dégg. wala yooyu noonu doo ko dégg Kafountine États-Unis ay taux de mortalité taux d'agression donc insécurité à cent pour cent euh, loolu dafa bokk ci phénomène social mhm. donc du loo xam ne euh, côté boobu rek lañ ko baaxoo di di gis genre yu mel noonu dafay faral di am mhm. donc di xalaat dinañu fexe dalal xelu ñi nga xam ne bëgg nañu ñëw Kafountine bëgg nañ ko bëgg nañ Kafountine bëgg nañu fa ñëw dalal leen ne bu ñu ñëwee dinañ nekk ci seen euh, ci seen jàmm euh, ensuite dinañu fexe ba nga xam ne bu ñu ñëwee du ñu rëccu lu tax ñuy ñëw def seen vacances Kafountine mooy euh, produit tourisme yi mooy culture bi ma doon wax environnement bi ñuy wut géej gi doon géej yu rafet plage plage yu yu baax yu yu rafet ñi ngi fa euh, jën yu baax yi jën yu baax yaa ngi fa tout ça donc boo ñëwee voilà dinaa la fa invité nga ñëw tourisme donc euh, boo ñëwee dina dina la neex trop mmh. et dinañu def ñu mel ni yéen tamit ay ambassadeur mmh. Kafountine parce que tey boo fi toogee li ñuy dégg parfois boo demee si si si réalité terrain bi. li ngi dégg ak li ñu lay li ñu fee mais ah, boo fa demee boo fa demee amoon naa ci benn xarit seen seen benn naataango. bi ma ko fa njëkkee yóbbu. léegi euh, yàlla jëlee na ko fi yàlla na ko yàlla xaree ah àjjana. Mm-hmm. Mm-hmm. mais bi ma ko fa njëkkee yóbbu dafa euh, xel bi dalaloon dafa mét dafa métti woon. <laughs> mu yëngu tuuti rek mu song ma ne ma Dawida ah, Mbadou gars yi ma ne ko. <laughs> <laughs> mu ne ko noonu mais après ce qui m'a marqué moom day jékki-jékki rek mu woo ma ne ma mais maa ngi Kafountine maa ngi sa mu ne ma je me sens beaucoup plus à l'aise en sécurité fii qu'ailleurs mhm. mu doon lu ma marqué trop donc kooku dafa dem ba doon ambassadeur foofu <laughs> ay féewani des amis ñuy dem di fa di fa di fa noppalu yooyu noonu donc euh, loolu tamit dafa am euh, solo trop <laughs> donc ci noonu la ñu fas yéene <laughs> fexe ba tourisme bi euh, ñu ngeen ko sukkandiku. ñu sukkandikuwaat ko ci ci Kafountine. am na solo am na solo euh, Kafountine googile tey monsieur le maire yow la ñu dénk li nga xam ne moom moo jëm ci commune bi ci wàllum jàng ci wàllum li nga xam ne moo jëm ci infrastructure hôpital yi wala sax centre de santé Kaf euh, Kafountine ana fan la ci toll ndax am na ay jéego ba nga ñëwee ba tey. waaw bi ñu ñëwee ba tey mooy li ñuy wax euh, état des loolu lañu ñu. six mois nag xanaa léegi doy na. waaw su weewee moo tax euh, dañ convoqué am na vingt six écoles primaires euh, dañu woo directeurs yëpp ñu waxtaan. def état des lieux. xool naka lan mooy les besoins les besoins prioritaires lan lañ mën a def. Euh, te mu jàmp li nga xam ne mën nañ ko def progressivement yooyu yëpp ñu jël ko euh, tëggu ko mu doon ay des des des projets uh-huh. comme jàpp nañ ne projet zéro euh, abri provisoire uh-huh. projet boobu mi ngi fa parce que avec euh, ak directeur d'école yi xam nañu école bu nekk ñaata ñaata abri provisoire ñoo ñoo fa ñoo fa nekk uh-huh. xam nañu léegi léegi loolu école yooyu sur fonds propres dinañ xool at bu nekk ñaata école lañ mën a tabax ak ay partenaires yu ñu mën a def aussi euh, beneen bi aussi euh, toujours ci école bi par rapport ak fourniture bi suñu ambition mooy euh, zéro frais séro fourniture pour les parents d'élèves uh-huh. dañ fas yéene jël en charge élèves mais loolu aussi xam nañ ne ressource commune bi. Hmm. attanu ko. léegi loolu nan lañ koy defee. Hmm. toujours par rapport ak koom-koom bi. Hmm. ak valoriser bi xam ne suuf saa ngi fa. suuf su naat ñu ne léegi dañuy créer li ñuy wax des fermes scolaires genre jardin scolaire yooyu doon quoi. mais dañ fay bay def fa maraîchage def fa jardinage def fa léegi li nga xam ne lépp lu ñuy. bay ah, lépp lu ñuy am foofu loolu mooy financer école bi mooy jënd fourniture yooyu noonu déjà ñun dañ ne dëkk bu nekk na joxe suuf am na dégg déjà dëkk yu yu commencé joxe danañ ko expérimenter progressivement te loolu bu ci population bi àndee te bu ñu leen expliquer woo nañ délégué quartier chef de village yëpp expliqué nañu ñëpp d'accord ko buñ ko defee ma leer na ma ne fii ak ñaari at benn xale dootul jënd fourniture euh, à Kafountine. wala sax day gën a encourager xale yi ñu des ci école yi. encourager leen di gën a encourager. Mm. te aussi dañ leen di jàngal ci yenn métiers yi. parce que dégg français baax na. Mm. mais boo ci génnee ak métier wala dès le bas ñu initier la ci genre activité yooyu agriculture ak yooyu noonu boo ko màggalee donc euh, je pense que euh, dina mën a orienter xale yi sur les formations de de métier mm -hmm. donc euh, loolu dafa am solo ci wàllu éducation bi loolu euh, loolu la mais ci wàllu santé bi parce que voilà c'est important tey objectif bi mooy ubbi centre euh, centre. centre de santé centre bi fa bi nekk. Oh. fexe ba mu am euh, médecin. il faut amul médecin uh-huh. fexe ba mu am médecin yu fay yu ñëw parce que dëkk bee ko dëkk bee ko laaj uh-huh. mais léegi ñu gis ne pour euh, financement bi parce que c'est euh, comment ça s'appelle des services sociaux de base. ñu ne léegi ñun suñu politique suñu gis-gis dañ ko orienté ver les secteurs productifs et les les les secteurs euh, productifs. Ah. mooy secteurs yooyu noonu secteurs yuy créer richesse la. Ah. ci bu ñu ko defee avec la population. ñu comme xam nañ ni collectivité territoriale yi c'est vrai am nañ ambition mais mooy yi euh, ça ne suit pas ah. léegi nan naka la ñuy financer loolu bu ñu demee ci les secteurs euh, productifs ah. euh, li ñu fay ak pro déjà programme bi ma la wax nii dina permettre ñu financer euh, lépp lu jëm ci ci santé bi ah. donc euh, tout en ne croisant pas les voilà tout en ne croisant loolu tout là c'est pour compter sur nos propres moyens <laughs> léegi ci kaw loolu euh, dinañu xool par par exemple un projet de de renforcement de des infrastructures sanitaires <laughs> suñu amee ay partenaires yu ci mën a jàpp dinañ dinañ ci jàpp <laughs> mais ñun am nañ benn politique euh, boo xam ne dañuy compter d'abord si suñuy propres moyens pour euh, pour loolu la jeunesse ndax stade infrastructure endroit loisir yi pour askan wi euh, loolu yëpp yaakaar naa ni am na Kafountine wala yaa ngi ci bëgg ay projet waaw am na des terrain comme ni ñu ko xamee les terrains yooyu yooyu noonu. Uh-huh. donc euh, te boo ñëwee euh, sur les chefs-lieux de de commune. Uh-huh. déjà ñoom am nañ espace de huit hectares boo xam ne bëgg nañ ko def stade municipal. Uh-huh. donc loolu ñu ci ñu ngi koy togg. ñu hmm. koy ñu ngi ciy liggéey projet la hmm. boo xam ne l'idéal que mu am stade municipal. Hmm. vraiment boo xam ne sport bi aussi euh, c'est vrai euh, waxuma ko mais euh, activité la boo xam ne aussi am na fa solo trop. donc buñ ko développé. ak projet bi may wax ni bi ma lay wax nii. ñu créer stade municipal ñu créer stade municipal. dinañ mën a développer yenn discipline yi. Mhm. ba nga xam ne sax yenn compétition yi dinañ ko def euh, Kafountine. Mhm. parce que am nañu cadre bi. pense que les compétitions nationales match yi ñuy joué Ziguinchor mën nañu ñëw joué ko Kafountine parce que infrastructure yaa ngi fa. alors monsieur euh, jeexalee ko tey ci wàllu politique ah politique euh, élection législative lañ nekk élection législative yi euh, ndaxam David Diatta tabb nañ la wala tabbuñu la. non tabbuñu ma au niveau département bi ma bokk Bignona. Mhm. Euh, tàbb nañ fa euh, ay nit ñoo xam ne ñun leer nañ ne bu ñu demee dinañ dem assemblée sax. docteur ah loolu dinañu dem assemblée euh, non teelul mais li gën a neex. Uh-huh. ñun tey majorité assemblée ñun loolu la ñuy wax fi mu toll nii. yeewi askan wi am majorité assemblée. c'est possible. c'est très possible te dafa jot. Ah, ci naka. dafa jot parce que démocratie Sénégal. Uh -huh. moo toll foofu donc euh, démocratie Sénégal moo toll ci jéego boobu <laughs> alors euh, tey le régime en place daf ñu bëgg a delloo ginnaaw ci naka peut-être avant les indépendances mais tey askan wi du nangu loolu moo tax dafa jot pour mu moomaat kàddoom mm-hmm. muy jël assemblée nationale ba ñu imposer Euh, au régime en place mhm. une cohabitation loolu mën na nekk ci ci naka mhm. euh, ci volonté population bi rek ci volonté population bi mais dans un premier temps à à Ziguinchor d'abord foo xam ni enjeu la est-ce que jàpp nga ni yéen da ngeen ni dàbbaliwaat wala entre temps euh, mouvance bi dajaloo nañ de est-ce que du leen indi ay problème foofu au niveau de la région waaw ñun instant bi duñu dem ba naagu mais ci benn raisonnement bu simple parce que ñun pour ñun projet bi 2024 la yóbbu Ousmane Sonko palais te pour yegg fa dafa am étape yoo xam ne yu am solo la muy local yi je pense que population bi comprendre nu loolu ba tax na malgré li ñu wax ay opposition mënul yor mairie boo yoree mairie état du la bàyyi ngeen liggéey population bi xool loolu mu hmm. def confiance projet boobu hmm. ba tax na moo tax ñun ñi ñu nekk tey euh, maire hmm. deuxième étape bi mooy tey euh, assemblée nationale enjeu bi mooy lan parce que nañ ko wax te dee Macky tous les actes yu muy posé muy présenté waat pour un troisième mandat te constitution mayu ko ko euh, pour freiner loolu nag faudrait que ñu jël assemblée delloo ko askan wi delloo ko yeewi askan wi tey bu assemblée jëlee bu yeewi askan wi nekkee majoritaire au niveau de de l'assemblée nationale forcément dafay am cohabitation Macky du du dootul indi loi bu ko neex euh, assemblée nationale pour ne léegi le mandat la durée du du comment s'appelle le nombre de mandats ñaar la ni ne peut modifier je ne sais quoi quoi pour plus de deux mandats consécutifs alors qu'il a def il a fait deux mandats et li ma lay informer mooy bis bu sénégalais yi juumee ba Macky Sall am majorité assemblée nationale dafay non seulement dafay def euh, troisième mandat mais dafay génne limitation du nombre de mandats juriste la xam naa li may wax mhm. euh, nan la koy génnee tey dañ ne constitution bi dañ ko verrouillé mën naa d'accord ak ñoom dañ ko verrouillé mais caabi bi ñu ngi ko dugal seen poste heure bu leen neex ñu génnee tijji ma loolu laa gëm naka la parce que pour changer constitution bi euh, droit constitutionnel dafa ne pour changer constitution dafay nekk ci état bu bees wala mu doon changement de régime te pour changement de régime tey indi dindi nañu poste premier ministre kii nañu dinañ kii dinañ indi poste premier ministre ne léegi voilà régime parlementaire régime présidentiel la woon léegi ñu ngi ci régime parlementaire léegi dañuy réviser dañuy am indi constitution bu bees defal loi yu yu leen neex ñu nag du waruñu yegg foofu. waruñu yegg foofu alors monsieur le jeexalee ko Ousmane Sonko kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko fan yi jur na coow nee na li ma waxoon maa ko waxoon waxaat na ko euh, coow li bari na Ousmane Sonko indi bàyyil Ousmane Sonko yéen ñi nga xam ne yéenay farandoom est-ce que loolu du leen xaw a perturber des fois ci communication. Euh, kaddu Ousmane Sonko man mi sam bopp wax naa ko waxati ko te dinaa continuer di ko wax. dara lu ci dara lu ci garaaw amu ci te dëgg rek la wax. mais coow li bari na. waaw coow li nag euh, li tax mu bari parce que voilà euh, dañ toll foo xam ne si Sénégal. Mhm. Euh, nañ ko wax te dee ñun ñëpp ay sénégalais lañu man sénégalais la dëkk Casamance. ni keneen ak keneen amee droit ñaxtu wax wax lu ko naqari lu ko neexul noonu la. Casa Sebi ki nekk Kafountine amee droit wax li ko neexul. tey injustice bi am c'est une injustice. alors bu ko keneen waxee sa ça passe inaperçu amul problème mais tey bu ko Ousmane ko waxee wala un David Diatta wax ko ñu def ko scandale lu tax loolu nag ñun avec notre génération. Euh, dañu bëgg loolu dàkk. foog mu mu arrêté. Uh-huh. ñuy jël kàddu yi di leen teg seen seen contexte dinaa la dinaa la surprendre man eh, ki may yal na ko yàlla xare ajana mooy suñu tonton Golbert. nu muy ndamoo ak Saint-Louis. Uh-huh. lui tu vois. Uh-huh. il est fier d'être Saint-Louisien. tey man su ma jëlee attitude boobu léegi onte moom ma tax de rebelle. loolu warul am si Sénégal ñu ñëpp ay sénégalais lañu ñu ñëpp ay sénégalais lañu. kenn ku nekk yow euh, fi nga juddoo lu yow yaa ko tànn ñun ñëpp kenn ku nekk fu mu juddoo du moom moo ko tàmm donc yàlla moo ñu sàkk foofu mhm. et on doit être fier de mhm. cela donc ba tax na euh, li may ñaan nit ñi mhm. ñu bañ a diaboliser diaboliser loolu. nekk di euh, stigmatiser stigmatisation boobu wax naa ko. Mhm. am na benn conférence de presse moo wax naa ko. Mhm. wax naa ko man ne leen stigmatisation boobu dañ ko war a bàyyi tey ñun ñëpp dañu war a encourager la paix en Casamance. Mhm. tey ni ma contrer euh, l'idée ou l'esprit d'indépendantiste. ak képp ko ku ko mënta aussi avec la dernière énergie nous lay défendre les intérêts de ma localité. de mon terroir. donc tey étant Casamançais. Euh, du ma ragal parce que dañ may taxe rebelle ba du ma wax comme yi suñu suñu émission bi. donc pour ma wax loolu. donc euh, loolu daal vraiment nit ñi. Euh, foog ñu arrêté ko te ci politique bi rek la amee. tey boo demee Ousmane li mu wax boo demee Kafountine li ma la wax am nay sàll. li mu wax noonu ça concerne les salles de de Kafountine ça concerne les sites de Kafountine ça concerne les jéju de Kafountine ça concerne les jaata de Kafountine donc ana problème bi. donc euh, vraiment loolu pour man. Mhm. du débat. ok cherchons le problème pour man loolu du débat. du débat du tere. Mhm. loolu du tere euh, population bi gëm bi mu ñu gëm Yewwi Askan bi du tere ñu xajamal seen xel ba nga xam ne 31 euh, juillet bu soobee yàlla ñu. kon da nga jàpp ni Ziguinchor moom. non romb romb jéggi la quoi. voilà justement. Ziguinchor c'est c'est parce que euh, pour man. Mhm. ils doivent pas faire autrement def autrement mooy euh, trahir seen bopp te góoma ne toll nañ fi ñuy trahiré seen bopp parce que euh, yoon wi des na comme ni ma ko waxee ay étape la donc étape bi ñuy foog ñu réussir ko te gis naa ne vraiment chinese euh, bi ñëpp dañ farlu pour euh, pour euh, pour réussir projet bi Ziguinchor la région de Ziguinchor c'est la base politique naturelle de Ousmane Sonko ku nekk ni muy ndamoo ak sa base gis nañ ko c'est gis nañ ko c'est pas une première dans la politique dans l'histoire politique euh, sénégalaise okay. donc tey Ziguinchor base naturelle euh, Ousmane Sonko la donc euh, les populations lui sont fidèles hmm. te gëm nañu ne euh, élection yi euh, les trois départements de la région dañ cay rafle David Diack am nañ mbégte tey dalal la ci émission gox bi waxtaan nañ xam nañ lu bari bari bari tey ci Kafountine ñun suñu wàllu bopp kontaan nañ am nañ mbégte di la jox di daje wala nga tàggateeg mbokk auditeurs yi auditrices yi mais surtout aussi ñu ñuy déglu ca Kafountine. tout à fait tout à fait maa ngi lay gërëm di la sant. kontaan trop aussi ñëw euh, bokk ci émission bi di nuyu waa Kafountine. ñëpp voilà di leen euh, jaajëfal ne leen euh, fi ñu teg seen tànk foofu la bu ñu ko tey ji dañ pare pour liggéey leen pour euh, en tout cas jaamu seen i seen i soxla nuyu seen i auditeur ak seen i auditrices di baalu àq nag di baalu àq parce que voilà wax neexul voilà kàddu gu ci rafet rek ñu xam ne suñu borom la bu ci dëng tamit ñu xam ne ci ci man la voilà donc aussi intention bi du pour gaañ kenn mais pour leeral rek te yaakaar naa ku nekk dina ci jàng jëlee leçon voilà jërëjëf mhm. di ko sant di ko gërëm mbokk yi David Diatta woon moom moo nekk maire bu Kafountine moom lañ doon dalal ñi ci tey ci émission gox bi jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité gërëm Léopold Mendy moom mu nekkoon ci xarala gi jërë ngeen jëf